bisa bisam bi nak su boba lay xamni nak talent la yor moom dafa yakane man garder rek mooy sama métier man garde sama métier de su boba nak ba mu jub si nak bama wayal ko xalal len ko yon wé mu jaar fi xalal len ko wé ay mu jaar fi musala mère mu jomba yon waange ki pàcce gin gin pàcce gin gin gin pàcce cum ay laa yi la laa pirip foofu toj salaamaaleykum hmm? sëñ bi neen def sant ma nan la sëñ bi gaa yi ni fitt gu mbër sànni damaa yaakaar yi dégg man man damaa yaakaar man yéen damaa bëgg nga déglu mu baax a baax yéen da ngeen yaakaar ni kër Moussa le maire bi ku mu jekk rek dugg da ngay ñëw rek dugg fii audience moo fiy dugal nit de. audience moo fiy dugal nit the audience je venue dans la maison y a pas de audience je parti dans la maison tout de suite je oublié nag. Euh, man ci problème ci audience boobu nga nekk fu tegal sa baaram foofu audience lay wut. fee laa dégg la ngay waaye ngay mel ni ku bokk nga adorance maa ngi dégg fee ah bëgg naa ku la produit nag xam nga laa bëgg fi ne nii. sëñ bi waxal te bu ma laal nag wax dëgg ah, yàlla. maa ngi jégalu yow te bu ma laal yow itam. maa ngi jégalu damay romb fii léeg-léeg di am na wenn waay bu may romb fi mu toog day xim léwal deuxième troisième bu ma dëppee fekk ko muy nelaw kooku nag xam nga ni ma tudd sécurité sàcc bu fi duggee dina sàcc waa kër gi sàccaale kër gi sàccaale ko moom yóbbu man nag damaa bëgg nu jël ma fi teg ma fi moom ñu dàq ko ca xaj di laa bëgg mais yow yow yow yow li ngay wax nii yow yow yow am nga yow ban problème nga am yow lan nga yow lan nga yow lan lan mu bëgg expliquer ak yow lan ngay def laa bëgg a xam. ah li may def kay la yow daal bu bu ma déggee fi nga waxee mooy man sama provision nga may laaj je suis un. Euh, directeur euh, protocole. lépp kuy protocole ci dëkk bi man maa ko yoroon man réew mi fu ne toog ko fi kil ma xam mbaa xool dama nga laaj fa. xool oui man non non non wax fi ma yem nag. danga may bàyyi rek ma wax li may wax sax bu ne CV ngay laaj kil ma xam mbaakool garde naa fa nu libéré ma ma jeng garde fay dugg euh, nu ngi koy waxeeti sax Pataar nu libéré ma ma génn dem Daaru Moussi garde fay at yàlla dogal nag nu libéré ma ma dem Potou dem Pout dem Pataar ak Tataguine ak route de Boune gii dem naa fay at nu libéré ma naka laa génne foofu dem parcelle garde fa mu libéré ma géejawaay laa mujjee toog maa ngi nii bëgg ku ma dimbale te yàlla tax rek ma garde pare nga naa la yow sëñ bi xam nga lan la gis nga ngay wax ni waxi caaxaan na yow foofu yëpp jaar nga fa ñu libéré la yaa may dégg man nag yàlla def na kenn libéré gu ma yow sax am yow libéré xam nga yow libeere nañ la yow man kenn damaa libéré te ñaanuma yàlla ñu libéré ma yéen déglu damaa bëgg nga déglu ma nag damaa bëgg nga déglu ma rek dama ni la damaa bëgg nga déglu ma soo waxee donc déglu ma rek yaa ngi may man ñaanuma yàlla ñu libeere ba man kër gi xam naa li leen fi indi yéen ñëpp sama waa ji bi mu a woon monsieur le maire kenn ñëwu fi kenn jaabante fi nit ba yàlla may ko ku nekk di rëppi rëppi ñëw naan libéré nañ ma sorti nañ ma parti nañ ma man loolu sama yoon dafee nekku sama yoon nekku ci en tout cas fii man maay gardien bi te man maay sécurité bu mat sëkk Kergi, kenn du fi dug keur gi the audience the venu dans la maison y a pas de audience the parti dans la maison fofu nga juum ak sa mbaxana mu nga nek fi dal ay monsieur le maire rek yow monsieur le maire bam koy xam xamoko ki kii monsieur le maire djob mi campagne may dama ci japp dama jël naa taxe kalandu njëmbat njaga njaay fu ne jël na ko jël booy dugal leen fi xam nga ki ñuko fal ci la bok yow nak xamul li la tek fi motax nga ne fi di wax siis nga bon nga li ñu naan buur dag yaa ngay def ak say paxa bakani ne fonce tiaye yow bàyyi nit lu tax ngeen nay ta añaan sa kanam gi mel ni xolitu góom yow xam nga sées bi fi nga yàgg maa la fi jëlee loolu léegi sa sa liggéey lañ cee man dara xool sa yeel yi yow xulli sa kanam gu dese la génne euh, zéro añaan nga sa ñaawaay mais ma ne ndee la maa joon damaa mënta déglu benn information li xew ci réew mi kat dama koo xamul ah, dum rek li xew ci réew mi Ik xaw ma ko benn yoon rek Kàbb Mbay Kàbb Mbay koo ci ci

Au revoir. Bye. Bye. Hey boy. man ñëwal ñu wax yàgg ngeen. pourquoi cette question. ah man sa bàyyi laa ñëwal dama lay laaj kese nga may jaay ay tàng xool ni ma jaay estrom booy. la moo tax nga may laaj loolu. da may déglu rek man sa bàyyi laa jarul jaay ay tàng xool ak yooyu noonu nga may xëcc ma ndax yàgg ngeen ne ma yàgg nan mu la yàggunu rek gis nga gone gi ñu nag moom a dëkk naa la wax ñett ci moom ba ci ñen bi ci jiitu dafa xeeñ xunn du sangu kër gi fii fukki fan ak juróom dañuy toog di ko xëcc di ko ñot di ko dugal ci duus bi mu ne àll bi mu ko dural ñaareel ba xeesaan bi moom dee ko gis nii rek ci kaw la nii ak ci tànk yi lu ko dalee ci biir bi ba jàpp ci naq yi dem ci lupp bi dafa ñuul ku ku ku ku ku charbon sax a ko tane ñetteel bi ñoom ay dëmbulunu <clears throat> dañuy lekk ba ci maamaati maamam ñun ñëpp dañu leen di tam gone gaa ngi nii. am na yetti jikkër yoo xam ne kenn ku ci nekk moo la rey gas ba pax ba mu xóot mu suul la dafa am ay jinne yu mu àndal te ñam rey ñëpp ay ponkal la noo waxuma la ak yow moom daal ah man da sa jàmm ak sa jàmm yaram laa bëgg boo duggee ci moom ay jinnam daan la saax saaxee lekk la wala ba nga mel ni ci nga dege te baaxut ci yow mba dégg nga ma sama doom nga loolu képp laa lay nañ ci góorgóorlu da lay lekk. <laughs> jaajëf <laughs> bàyyi ci xel bu baax li ma la wax. yaa xam fëccee boo ko bàyyiwul lu sama yoon nga may jaay tàng mbàkk et topp ko mu lekk la ba xam yaa koy yëg nga may jaay tàng mbàkk ak ay gudd butit namay xalé bi bàyyiwuma ko di jaay jantal jantal yal na la lek ba nga jeex tak ban ji bànn naan ay xale bi bàyyiwuma ko yaa kan? xam faalew mala man bi si mi wuyu la ay xale bi bàyyiwuma ko ñii ah li ma ko wax du deug top ci gona go xamne ne nga ma ci kër gi ñu tek nañ ci sun bët xalé bi xéñ na du sang tang na xol ta top tuur nit ah nga yaakaar na lu muy lu ko dee mën da am fullaam ak faydaam xam ni mi taxawee gis nga man sama way te li ma lay wax moom deug booy bi nan wax ak moom ah, mu bàyyi xale bii kii baaxut dafa ay gaaf sama yoon nekku ci laajuma la cabinet médical traditionnel Serigne Medoune borom tawféex di fajkat cosaan booy jëfandikoo gàncax ngeen mën ko fekk Touba Kaoulak, Thiès wala Sakhindar, Ndar ngeen ko 78 585 34 34 78 585 34 34 Molen leen may.